président de la république Bassirou Diomaye fay waxee premier ministre faylu ko ci mooy jub jubal jubbanti te yam ci lépp nag def ko ci maandu xam ni lépp lu ñu def sooba ngoon jot Sénégal moo ko moom Sénégal lañ ko war a delloo askan Sénégal lañ ko war a delloo loolu moo nekk ci projet bi ñu porté ñuy bëgg wax ñëpp nag bépp sénégalais nañu jóg ànd ak gouvernement bi dimbali ñu ci lii te am nañ yaakaar ni xam nañu enjeu yi sénégalais yi xam nañu enjeu yi donc danañ ànd ak ñun ci lii defar suñu dëkk. tout à fait waaw li mu ci wax rek moo am solo. mooy waaw li mu ci wax rek mooy li am solo mooy nekk nekkatuñu ci jamono wax. wax nañu campagne nañu peuple bi décidé na ci jamono jëf la ñu nekk ak ci jamono xaar résultat donc ñi nga xam ni ñoom la yàlla teg réew mi ci seen loxo ñu leen di ñaanal yàlla kàttanal leen ba li ñu digaate ñu mën ko mottali te mooy wàññi dund gi wutal nit ñi liggéey teg réew mi ci njub loolu la ñuy xaar te bu ko réew mi laajee amul benn problème incha allah